Euh, ci territoire sénégalais bi sénégalais bi yëpp nag lañ ko def fépp ci Sénégal li tax ñu defoon ko mooy dañuy ñëw pour soutenir seen collègues yi nga xamante ne dañ leen arrêté woon ci enquête bi concerné décès wu Astou Sokhna nekkoon jigéen boo xamante ne dafa demoon ci hôpitalu euh, Amadou Sakhir jigéen bu Louga doon mucc far ñàkk bakkanam euh, ñu bëri ne non assistance à personne en danger la ba pare bañ a prendre en compte douleur bi nga xamante ne mi ngi ko doon yëg bi mu ñëwee foofu pour accoucher si euh, loolu nag bi ñu ko defee tey yokk nañ yeneen cas ci seen grève bi mooy nee seen salaire yi dafa ndaw pare seen plateau technique bi c'est pas élevé donc mënuñu prendre en charge nit yi convenablement mais liñ si jàpp rek mooy que y a des conséquences si jigéen yi nga xamante ne dañ doon matu yëpp tey ndax elles ont pas demandé à ce que tey nekk seen jour d'accouchement soo ñëwee amoo ku la prendre en charge dina metti ci yow ba tax na jigéen yu bëri yu nekkoon foofu ci hôpital boobu di Amadou euh, Sakhir Mbaye dañu mujjee dem ba Saint-Louis pour mun a dem accoucher foofu malgré yi nga xamante Euh, prendre dañu am seen ay témoignages ci reportage bi nga xamante ne Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoom ñoo ko def. ñoom dañu ànd ak ay jigéenu wérul ñëw ci hôpital régional bu Ndar ginnaaw bañ ne ràpp maternité bi nga xamante moo nekk ci Louga te la ko gën a waral bokk na ci lu jëm ci wàllu grève bi nga xamante ni sage-femme yi amal nañ ko soxna si moom ma nga jugee fu sore ca luga ba mu ñëwee nag ca maternité ba ñu tëj ko lañ ko daal di yabal mu ñëw ci dëkk bii di Ndar géej. ñu dem Louga yegg ñu neeti dañoo geraw ñu dikk Louga ñu daan nañu ayoo da ngeen di dem directement Ndar ñu ñëw ak sunu malade ànd ak jafe-jafe yoon wi jafe-jafe xaalis ndax bu ñu jógee ca kër yaakaaru ñu woon ne dañu yan si fii. ñoom nag ñu takku lool waaye la ñu le mooy fii ci diwaan Ndar géej daan nañ leen di dalal te amuñu benn jafe-jafe. ndikkee Ndar wax dëgg yàlla wàcce na nañu fii nu dugg bi waa Ndar itam suñ doom am na doom xam naa liñ fi téye démb tey day xale bi lañ ne dafa am feebar man mii may màgget mënu maa yéeg di dem fa gana yene docteur yi fi nekk tamit su suba ba léegi dañu sonn wàcc ñu benn yoon ñoo ngi nii si biir man man sept laa fi ñëw ba léegi sama malade sax génnagul wax dëgg yàlla sa suba ba léegi ñoo ngi fi fii la ñu fanaan wóor na yàlla ci seen i kàddu la ñu bëgg mooy sage-femme yi dakkal lépp lu jëm ci wàllu bi nga xamante ni daanuñu koy tàmbali ndax sage-femme moom bu sañoon malaatam day wér rek waaye du du tëdd mukk loo nag xam nañ ne lii geraw bi metti la def ndax bi kenn ko dee moo gën téeméeri dee ndax li xamuñu keneen keneen ko fi deewaat. grève bi sage-femme yi tàmbali tax na ñu ci bari ñi nga xamante ni dañu waroon yimbi ca xamante ni mooy ca diwaanu Louga jamono jile ñu ngi ci diwaanu Ndar Géej ñu jàpp ni nag grève bi dafa war a jeex ndaxte jafe-jafe yu mag jamono jile moom la ñuy dund. voilà tey d'ailleurs euh, grand place yëpp réseaux sociaux yi euh, moo nekkoon euh, loolu moo nekkoon débat bi. Euh,